ñu ngi ci waajalaat e, karawaan bi nga xam ne moom lañuy ñuy amal ngir waajale ko màggalu Touba te di ko wax karawaan grand màggal de Touba karawaan boobu nga xam ne dox nañ ko lu toll ci juróom-ñetti at jàpp juróom-ñeenti at te mu doon kon ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Moukhtar yal na yàlla doole ay leeram wàcc si waat ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram mu jaar nag ci Cheikh mahamoudou Bachir mom Cheikh abdou Khadir mi nga xamne mo yor lépp lu jëm ci walu organisation màggalu Touba waye mo yore yit kaddu xalif général kullu mourid yàlla nako yàlla jàppaleel bopam mu wàcc ci commission bi nga xamne mo yor communication ak culture te Serigne Cheikh abdou lahad mbake gayne Fatma jité ko te diko taxawé at yii ñu diko ànd ak mom te muy jitu liggey bi. waye mu jaar ci nak ci Serigne Moudou mbake si mom Serigne mustapha si mom Serigne malik Bassine. mu ànd ko ak Serigne Khady Diakhaté mi nga xamante ne bii moom euh, Serigne Cheikh Diakhaté tindoo di waaye bokk ci ñi saytu lépp lu jëm ci wàllu alquran ci dëkk bii di Touba. waaye fegoo ci ak sëriñ Fallou si ak seen mbokkum taalibe mii di wax ak yéen Fallou Gala si la ñu fegoo ci ak sëriñ Moustapha Mbaye ñu fas yéenee nag tàmbali liggéey bi tey jii euh, di euh, dimanche. yamo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab yamo ak sént bu njëkk ci weeru wolof ñu taxaw fii ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi nekk ci juma ji fas yéene tàmbali liggéey bi waajale ko nag insha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ dem ci Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mu yëkkati déclaration bi nga xam ne baaxoo na di ko def bu nu fa jógee danañ daal di jàll kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara fekk fa Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi bu subaa bu nu xëyee incha allahu rabbi di la 30 danañ daal di dem nag fa li nga xam ne moo di kër Serigne Mandoumbe fekk fa Serigne Ibra Khoudia waaye ak ki yore kàddoom di Serigne Cheikh Bintou Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Mandoumbe gépp ñu amal fa jataay bu am solo bu nu fa jógee di le premier danañ daal di dem kër Serigne Afia mi nga xam ne moom Serigne Touba ñoo bopp lépp fekk fa Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Afia waaye ki yore kàddoom di Serigne Moustapha Mbacke moom sëñ Abdoul Akram le deux incha allahu rabbi danañ daal di jàll fi nga xam ne moo di Bambey séeréer danañ tamit dëkk bi nga xam ne moo di gaat danañ def escale ci yoon wi waaye danañ fanaani incha allahu rabbi Ngunjaan Ngunjaan nag danañ fa amal jataay yu am solo eh, yoo xamante ne bi ñu ngi séntu ne kay def waxtaan wa moo di Serigne Gana Messere Makhtar ak Serigne Khady Diakhaté bu ñu fanaanee Ngunjaan eh, le deux incha allahu rabbi bët seddi la trois danañ jaar daaray serigne mbacke Madina jaar keur serigne mokhtar mom serigne abdourahman mom serigne Moudou Mamoun buñu fa joggé danañ agné ci xombal fekk fa nak serigne Ibra nyamar ak mbollem ñinga xamné ñoo di talibé serigne touba yi dekk xombal buñu fa joggé inshallah rabbi ci la 3 ji danañ daal di dem ci la wunte buñu fa joggé danañ fanaani Touba Toul di dekk serigne Abdoul Khafour mom serigne Moudou Mamoun mom maam Cheikh Anta fekk fa ki nga xamné moy borom dekk ba di serigne Mamour Mbacke mom serigne Abdoul Khafour bu ñu fa jógee la 3 incha allah rabbi bu ñu xëyee di la 4 danañ jaar dëkk bu ñuy wax kokki kër sëñ Mor Diouf Ndorong bu ñu fa jógee nag danañ ko tëje ji fi nga xam ne moo di Réfane Touba Réfane nag di dëkk bu mag boo xam ne Serigne Touba dem na fa foofu it danañ ko ànd incha allahu rabbi ak ñi nga xam ne ñooñu yabaloon doonoon suñuy kilifa di Cheikh Mahamadul Basir ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad ne Gaynde ma foofee nag la ñuy tëje karawaan bi incha allahu rabbi ci ay conférence yu am solo ak ay thèmes yu wuute incha allahu rabbi kon bokk yi lii mooy programme bi nga xam ne fas nañ ko yéene jël ren ji di ko tàmbali ci le 29 di ko jeexal ci le 4 di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu may ñu def ko ci bismillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin di ko ànd nag ak mbooleem organe presse yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak ci biir réew mi moo xam muy site internet wala télévision wala rajo wala journaux buy bind ñoom ñëpp danañ ko ànd ak yéen ak rajo yi kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla ñu may ñu defal ko ni ko Serigne Touba bëggee te làq ci ngërëmul Serigne Touba Serigne Touba it yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha te doole ak wéram yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba gépp yàggal fi Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne ci kàddoom ak ndigalam la ñuy doxee ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seq comité d'organisation bu mag Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu